asalaamaaleykum yéen ñii seetaan Waarwi yi ñoo ngi fii ci Margo Daaru Muxti gannaaw bi ñu jógee kër xalifa bi ñu ngi ànd ak soxna maam Diarra Seck ak euh, Sané ñuy liggéey bi nga xam ne tey ñu ngi ñëw Daaru Muxti talaata ñaar fukki fan ak ñett ñoo ngi fii nag ci Margo bi bu ñëwee fekk nañ fi ñi nga xam ne ñoo yor Margo bi Mor Ndiaye nga xam moom depuis ca Baye Cheikh ba léegi moom lañ dénk Margo bi mu ànd ak ki nga xam ne moom mooy moodu Gueye Modou Guèye mooy yor affaire état civil bi yëpp ak ki nga xam ne mooy moor Sil léegi xam naa buñ demee ci sëñ Modou gay dana leen leeral sankat yi jigéen ñi ñaata lañ sankat yi góor yi ñaata lañ ak ku fi ñëw fan nga war a jaar ak waxtu woo xam ne moom lay tëj ak moom lay tijji yooyu yëpp xam naa dañ dugg ci biir eh, Modou Guèye leeral leen ko waaw bisimilah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ñu ngi fii ci biiru morgo Daaru Muxti fi nga xam ne nii mooy morgo Daaru Muxti ci ndigalul sëñ Abdou Samane Mbacke mi nga xam ne moom moo yor liggéey bi ci wàllu diine ji yëpp fii ñu nekk nag mooy fi nga xam ne mooy fi firigo yi bu ñu firigo yi mooy fi nga xam ne nii bu nit wàññikoo te yóbbaguñ ko fi lañ koy denc ba war ko yóbbu fii nag ñaari trois la benn bu ne am na ñaari kër yëpp ñu ngi fonctionné yëpp normal nañ ndax day liggéey boo xam ne nii Baye Cheikh Khady mi nga xam ne nii moo fi nekkoon xalifa moo liggéey liggéey bii bi mu fi jógee sëñ Abbas moom it nekk fi tey bi mu jógee sëñ Abbas sëñ Basiru Anta mi xam ni mooy xalifa maam Thierno Ibrahim ñu ngi ko ñaan moom it mu yàgg fi loolu te wér joxaat liggéey bi sëñ Abdou Samad mu yor ko nun nag man Modou Gaye mii ak sëñ Mor njaay bi nga xam ne nii moo yor barab yi nun nooy saytu loolu Mor moom moo yor barab bi moo yor tijj ak tëj man nag lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu bu fi doomu aadama ñëwee ñu saytu ko bind ko ci registre yi nga xam ne moom lañ yor loolu moom lay liggéey xamaa am na beneen kër boo xam ne nii nag buñ bu ñuy waajal moom foofu la ñuy waajale muy fii ñaari barab la ndax bii dafa am bu góor ak bu jigéen fii mooy góor ñi fee mooy jigéen ñi kon yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne mënta ñàkk ci wàllu àdduna si mënta ñàkk ci diineet ndax boo gisee lu mel nii dëkk boo buñ sànc rekk loolu dafay ànd ak bu dëkk ba ndax dund ak dee moo ànd te fépp boo xam ne nii doomu aadama dañ ko fa war a waaje dafa war a sell fii ci beneen néeg biit gis nga am na kilim ba nga xam ne nii bu doon koo xam ne nii dañ ko war a waajal léegi walla jëm ci takkusaan daanaka mën na fee nekk ba takkusaan du def dara moom am na kilim beneen bi ci desit amugut kilim waaye moom it danañ bëgg mu am kilim ndax ñu ngi fi lii ay table la yoo xam ne nii képp koo xam ne nii ñëw na buñ la arrêté bu noppi bu ñu yóbbu buñ lay yóbbu dañ lay bindal tableau boo xam ne nii dañ ciy def sa tur ak at yi nga am ak dëkk bi nga jóge bind ko olof bind ko français kon fii mooy barab bi nga xam ne nii moom lañuy waajale ñëpp daal képp koo xam ne nii jóge nga jóge nga ci wàññiku nga lii mooy fas yi nga xam ne nii corbillard bi moom it ku ñuy wax Cheikh Diop ànd koog taalibe yi borom daru yi mu ñoom ñoo ko taxawaloon indi ko fii nga xam ne magu bayti yi buñ daa dem armée dañ daa dox kiit biñ ko amee léegi doxatuñu corbillard bi mën naa yóbbu ba ñaari nit mën naa yóbbu ba ñaari nit mën naa ba ñetti nit waaye ñii ñaari lal lal yi moom lañuy dugal ci trois yi bu ko defee bu ñaar bu dee ñaari nit ñoom it ñu ànd ak ñoom léegi nag bii mooy beneen néeg bi moom fi ñuy waajale jigéen ñi mooy fi nga xam ne moom fi lañ wàññi jigéen yi ci barab bi ndax ñaari kër la ñaari kër la fii it am na beneen espace boo xam ne nii incha bi bëgg nañ fee tabaxaat beneen waajukaay muy ñett léegi nag xamaa bu ñu génnee fii rek ñu gën a mën a wax liggéey bi biñ ko tàmbalee ak leeral yi nga xam ne moom lañ ci bëgg leeral yépp bu fekkee ne dafa am ndax lépp lu ñuy wax mbas mi mbas mi bi ñëwee léegi dañ fee teg matukaay yooyu mooy bërgu bii nga gis ndax dañu bëgg ku fi ñëw boo ñëwee bala ngaa dugg ci biir raxasu ba set wecc ndax mbas mi moo tax ñu teg fi bërigo bii moo tax ñu teg fi bërigo bii xam ne képp koo xam ne ñëw na fi boo bala ngaa dugg ci biir rek ñu la jaar fee nga raxasu ba set wecc boo ko defee nga raxasu ba set wecc boo bu ñu waaj bu ñu waajalee ba noppit nga ñëw wala bu ngeen wàccee ba noppit dem raxasuwaat doo ko def dara am na am na selit yoo xam ni boo raxasoo ma ne dañ la ko pompal ci sa loxo kon xam naa góor góor waaw loolu moom bàyyi sooy bu yaakaar naa ne pay pay gi genn la ndax biñ fi ñëwee ci at mi nga xam ne mooy deux mille dix deux mille dix neuf le le trois décembre ci lañ tàmbali liggéey bii waaye la ko jiitu moom Mor Ndiaye mi moo fi nekkoon doon jàmbaar lool ñu ànd ak ba ñëwee nag gis ne xam ne xaw na fi néew doole lool ci lañ laaj ndigal ñu jox nu ko ci turu sëñ Abdou Samad ndax booba sëñ Abbas moo fi nekk waaye sëñ Abdou Samad ba mu joxee ndigal ne lii kat man ngeen ci liggéey booba nag lañ daal di ànd man ak Baye daam jaxate ak Modou Kourature ñu ñëw fekk si fi Mor Ndiaye mii Mor Sile mi nga xam ne moo nekk ci suñu wetit képp koo xam ne nii ñëw na fi te amoo ku la gasal moom it mooy ànd ak yow nga dem woon ko fi nga bëgg kër ga mu defal la ko ci Daaru Musti ndax Daaru Musti denc bi boo gisee loolu ñaari kër lay doon ci loolu la ma man bàyyi soo bi doon laaj ci laaj bi si woon ndax ku fi ñëw boo agsee la ñuy njëkk def dañ lay lañ lay laaj ban dëkk nga jóge nga indi sa certificat de jox ñu ko ñu arrêté ko ci registre bi nga xam ne moom lañ yor registre boobu nag dañ ko arrêté en attendant pour bu bureau yi noppee ñu dugal fi machine nga xam dañ koy dugal ci machine yi registre boobu bu ñu ko enregistré dañ ci enregistré tur ki gaañu ni mu tudd ak tëkkoom jóge ak ñaataat ak fi indi kookaat joxe numéro téléphone am ak dentité yooyu yëpp ñu enregistré ko kii faatoot ba am fekk ñu jëlal dentité am enregistré ko bu fekk amul dentité ñu wax ne ñaataat la ñu enregistré ko buñ noppee nag dañ la wax sart yi nga xam ne nii moom la ñuy joxe ci barab bi bu fekkee fii ci barab bi boo ñëwee waajtaay mi ak càngaay li ak laaj koloñ bi ak lépp daal onze mille francs ngay joxe onze mille francs ngay joxe mooy càngaay li table bi ak waajtaay mi onze mille yooyu nag cinq mille bi ñuy waajal ñoo ko moom six mille bi mooy càngaay li ak table bi ak laaj koloñ bi bu ko defee loolu it bu demee ba nga xam ne nii càngaay rës na wala table bi rés ci la ñuy commande naat yooyu nga gis wala càngaay li bu ko defee ñawluwaat ko indaat fi wala defaraat table tegaat fi loolu mooy warteefu barab bi barab bi nag gis nga liggéey yi fi sumb liggéey yi fi sumb gis nga ko taalibe borom dër yi rek ñoo ko fi def gis nga mbaar mi moom nga njëkk a filmate taalibe borom dër yi ñoo ko fi def ndax damay bañ a citer benn tur waaye taalibe borom dër yi ñoo ko fi def gis nga liggéey bii nga fi gisit muy liggéey boo xam ne nii ay biro la magasin ak ne gardien ba nga xam ne Mor Ndiaye bu wàccatee guddi bu wàccatee moom ñibbi heure bii rek gardien bi moo fi nekk ba set ku ñëw moom it mu arrêté la comme ni ñuy def ci bëccëg gi bu nu xëysee mu jox nu la mu arrêté woon ñu daal di koy arrêté ci registre bu mag bi daal di woo kooko bu fekkee ci dëkk bi la nekk bu fekkee dëkkul ci dëkk bi it ñu woo ko mu ñëw ñu daal di xool heure ba ñu war a yóbbu kooko bàyyi son bi am lu mu junjoon léegi ci aar yi denc yi ndax dëkk bi léegi am na changement boo xam ne nii am na ci aaru denc yi ndax dañ ne wax taan ak kilifa yi nga xam ne nii ñoo ŋànk dëkk bi ci ndigalul sëñ bi bi ñu waxtaanee ki nga xam ne mooy sëñ Abdou Samad mu waxtaan kilifa yi ne léegi kon na ngeen wër kilifa yi nga xam ne nii ñooy borom dëkk bi kenn ku ne ngeen dem ci moom bu ñu waxee loolu nag kenn ku ne xam nga dafa mënoo wër ñëpp waaye kenn ku ne am na koo xam ne mooy xalifa kër waajuram ñu dem waxtaan ak ñoom ñoom ñëpp ci heure yooyu ba noppi ndax fii heure bu ne lañ fi daa denc ndax daa nañ dem ba ay 7 heures ba 10 heures ba 11 ba minuit kon loolu it bi ñu xamee ne xool ne dëppoo ak nag jamono ndax jamono day dox ndax it bëgg-bëgg nit ñi ku yërëmul sa bopp it war a yërëm sëriñ ci nga xam ne ñoo dem ci ndax ñoom it wax dëgg yàlla dañoo amul mënta ngànt ndax sëb télé bu gaañu na ñu ne la kaay nga naan ngay joxe ngànt day xaw a jafe ci ñoom ndax am na ci ñoo xam ne tiisoo woon nañ ko lool nuñ koy waxe taalibe yi waaye biñ ci waxtaanee nag ñoom ba juboo ci ñu daan nekkoon lekkat sept heures ci suba ba sept heures ci ngoon ba nga xam ni. sept heures ba dix neuf waaw sept heures ba dix neuf heures rek. ba nga xam ne nii ar boobu ku mu fi fekkatut heure bii nga xam ne accès go moom boo ñëwee dangay fanaan ba suba gis nga contrôle yooyu ñu duggoon ci biir wan la yi bi ñu xoolee waxtaan ak kilifa yi ñu nekkoon léegi 7 ba 19 heures ku mu fekkatu Daaru Muxti da ngay fanaan bi nga xamee ni nii def nañ loolu boobaak léegi <clears throat> nit ñi ngi koy respecté bu baax a baax loolu it tey bi ngeen ñëwee loolu dañ ci santaat bu baax ndax def nañ avant ñuy waxtaan avant ñuy def lenn waxtaan nañ ci ñi nga xam ne nii ni ma la ko waxee sànq ci kër yi nga xam ne nii kenn ku ne yaay xalifa ci sa kër waajur ba noppi nag doo ko def communiqué communiqué bi ñu ko defee ba noppi nag ba nga xam ne ku ñëwati da ngay fanaan waaye nag am na leneen loo xam ne ni dañ ko cee ñambaas dañ ne képp koo xam ne nii yaa ngi départ nga ñëw ba ci yoon wi sa oto kooku moom boo wootee yëglu ne man kat dama doon ñëw ba barab sàngam sama oto paan kon kooku moom danañ ko bàyyi xel ba nga xam ne bu ñëwee danañ ko mën a bàyyi mu denc walla ki nga xam ne nii leer dañ ne buñ ko denc mu soppiku kook it duñ ko wuta heure ndax koo xam ne boo ko dañu mu soppiku il faut que bu heure doo ko wutal heure bu ñëwee rek da nga koy autorisé mu dem ndax loolu it mënut a ñàkk waaye ki nga xam ne ni moom waxul dara paan paan ci àll bi waxul dara waxul dara ba agsi kooku moom it bu ñëwee day fanaan waaye ki nga xam ne moom yëglu na ne man kat sama oto daa paan te muy dëgg ndax it loolu il faut que ñu wax ko mu leer ndax loolu it nit ñi mën ngaa toog ba yàgg ne man sama oto daa paan te sa oto paanut ngir bëgg rek daal di def def loolu te loolu duñ ko nangu dañ vérifier ba leer na oto bi nga yoroon wax du da daapaankat dëgg la bu ko defee boobaa moom loolu amul benn jafe-jafe liggéey bi daal moom mooy loolu di leen sant nag ci turu sëñ Abdou Samane Mbacke mi nga xam ne ni moom la xalifa bi teg lii ci bo boppam ñu muy kuréel goo xam ni kuréel gu mag la kuréelu gu tudd baytul mahmour baytul mahmour mooy kuréel gu mag bi waaye fii section morgue bi dafa am ay section section fii mooy section morgue bi mi ngi ci biir kuréelu Baytul Mamour seen site bi nag tur wi bëggoon naa xam ba man cee waar wi TV kon ñu ngi sant yéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw soxna si ak sëñ bi nga xam ne moom la àndal Touba waar wi yi di leen sant ci kanam Baye Sombi Diop mi nga xam ne nii ci bëccëg la ne woon kat bul dem ndax am na benn site bu fi ñëw dafa am lu bëgg jël ci dëkk bi te it bu sañoon jëlaale morgue bi kon ñu ngi leen sant bu baax a baax te li ñaanal bu baax a baax yàlla sàmm leen te tegal leen ci yoonu jàmm jërë ngeen jëf sant nañu baax a baax. jërëjëf euh, sëriñ Modou gay waaye jërëjëf sëriñ moor Ndiaye Ginaar waaye jërëjëf sëriñ Samat euh, sëriñ Mor Sill euh, kon ñu ngi sant ñëpp kon lii daal moom leen di doon jëlal fii ci margo bu Daarul Muxti margo bi nag mu ngi ci yetu jumaa ji waaye mi ngi jàkkaarloo kër sëriñ Modou Kara Nooré ni waaye kër borom Daaru ngoon ne moom itam kon télé bi jaar ci bunt bi jógee biir buntu Birgaat continuer ngaay di sant ñëpp di gërëm ñëpp sëriñ soxna Maam Jaara ñu ngi lay sant Saane di si yóbbante ay nuyoo ci DG e Bassirou Sylla jërë ngeen def